beaucoup comme ni ma ko waxee ah ci deuxième partie bi la ñëw war a waxtaane ak ki nga xamante ne ni moom mooy jaraaf Youssou Ndoye euh, actualité bi yi xew fan yi def buzz comme niñ koy waxee euh, mais laataa loolu dama bëggoon ñu dugg si yi maam yii yii yii cosaanu lébu yi yii nii yii nii maam dafa man dañ ma si sama xarit yi dañ ma siy xas sama xarit yu yaradiku nee nañ nee nañ nee nañ lébu yi seen jaraaf yeeg seen ndeyji réew yi comme i kenkayeer yi fu lu ne ñu takk d'accord xam nga tey jii bu fekkonte ne Sénégal dafa am coow lu rëy bu boobaa ku doxul ñun dinañ dox waaw ba tey mais bu boobaa si loolu lañ leen di couvrir si loolu lañ leen di dimbale xam ngeen ne yéen rek nekk leen fi nit nit kese moo fi ne comme alxuraan ngeen gëm nag noonu si noonu dañuy liggéey danaa dégg sax sénégalais bu jël ay jaraafaak ay yi muy def yëpp ñu ne non daal di ko féetale foo xamante ne féetewul foofu nun lu ñuy def ñu ngi commencé bismillahi rahmani rahim du ay ndëpp la ñuy wax ndëpp yi lañ naan bisimilahi jam ye ma tàggu yàlla ngay bisimilahi jam ye ngoon bisimilahi rahmani rahim la wala da ngeen amal beneen façon bisimilahi yéen jullit ngeen wax jam géej la jam géej rahmaani rahim ni nga koy defee si beneen anim muy jullee jàppaak toog sant yàlla noonu lañ koy defee pour ñaan yàlla kii dof na wér la ñuy fexe nag ah na ñuy defee kenn du xam di nga gis xale bu toog si mbedd ba jóg dem ñu ne toog na de moom day sawa mu dem tëddi nelaw bu ngoonee mu tam am bopp buy metti boo liggéey ñu ne dee na loolu mooy waral ñu yor ay bagas parce que tey gi tey ndakaaru gi ngay gis day yëngatu maanaam université yëngatu ne dañuy deko ne tey si ndakaaru da nga defe de ñun dañ war a toog rek di xulli noonu déedéet kon yéen am na taxawaay bu ngeen ci am ci baatin. waaw lu looloo wér fi mu nekk nii am na yu bari yoo xamante ne di romba doo xam nu mu doon yaa ngi koy gis mais man jaraaf wala keneen koo xamante ne si coutume bi la nekk day jël ay ay bagaasam daal di gën a dem régler ji ay affaire dañuy tuuru tuuru fi mu nekk nii du suba la alxames su ma am soow pare na pour que ma engagé pour que ñu tuuru tuuru di ñaan yàlla jàmm rek dafa am loo xamante ne mënul nekk. gis nga sunu mbokki rab yooyu ñuy wax n'est-ce pas que di yàlla tuddal na la ko ci alxuraan te gëm nga alxuraan yàlla ne ginne du mu wax ne ginne wala nit nga yow danga gis ginne fii gisuloo ginne nga gis koo xam dafa toog ñu ne ngelawal ginne ko jàpp parce que fa mu toogoon fa leen ginne romb am na yoo xamante ne dama wax ne ku ko gisal lébu yi da ngay fo te du lébu rek moo am rab waaw. seen rab a ci gën a soxor ba tey mais joolaay am nañu ay rab séeréer si am nañu ay rab dama wax ne mag ñi fii tooguñu woon noonu rek du xulli da ñëw fii ñu ne ba rab aw rab a nekk fii xamaloo luy rab yàlla doxal ba yàlla bés. ñu ne garab fii fi nekk doomi kumba làmb la rabu tëngéej nga dem ba si biir ñu ne lëg daawur a ngële toog sa ndakaaru ñu ne kii ku ko jur ñu ne doomi kumba làmb la mu am rab bu nekk ngor ñu ne buri nga ñëw yoof ñu ne euh, njare njare bi ñu demee ba si biir gaay na ah ngerekat bu rab jiitu si ñu ne ko jiitu ñu ne maam am na beneen rab bu fa nekk bu tudd maam waree mool ñu ne ana moom ñu ne mu nga sa it ba waaye am na ay nekk ko fii bon loolu indi loolu mu indi laaj boobu andi pexe ay pexe fan nga jëm léegi mag ñi liggéenti rab yooyu kenn ku si nekk toog benn place at mi ñu neexalal ko jox ko ndawalam bés ba ñu bàyyi rab yi di xam maa ngi ñëwaat ci rab yi parce que man bëgg am na lu ma ci bëgg xam mais maam euh, bu ñu ñëwaatee ci yii ba léegi xam nga nit ñi nag wax dëgg yàlla maam dañ leen a xaw a yërëm nit ñi ñoom tàngaay bi la ñuy xalaat maam du ngeen tàng yéen xanaa kañ man day su ma solee ba juróomi yére man naay sol juróomi yére yendook boo bëggee ma yokk sax dama ne su ma taxawee deux minutes trois pare naa max yo yow sol benn yére noo yem loolu beneen dimension. ba pare ay basin ak jees di sol. maa la ko wax. mais maam nii nii ñaata sol. booy sol da ngay sol yére fi ma toog nii ñetti grand mbubb ak mboobu ndox bi si biir muy muy ñeent. boobu laa compté. pour wax la nag mais dinaa jël sol sax lu ëpp loolu mais li wóor mooy xam nga nit da xoolu xool lu yenu rek gis am na yoo xamante ne bu defee nit ki dafa dof de régler problème moo fi nekk xamuñu ñun suñu problème dox jàmma dox jàmma jooju moo ñu toog nii parce que dox jàmma jooju moo tax ma lay wax ne bu ñu bodd konte kii dëkk Pira kii dëkk Dakar kii dëkk Pira kii dëkk Cambérène ñëpp benn lañ léegi maam damay damay dellu si waat si rab yi pour ñu toj chapitre boobu euh, euh, maam yéen yéen a fekkoon rab yi fu ñu leen di ngénte man tur yi ngeen leen di jox ku ko créé. ay maam Njare fii ay lëg daawur fii Kumba Kastel fii. de noonu. mais yéen ku leen ko wax. secret bi dëgg dëgg dëgg bëgg ngeen comprendre leen waaye mënoon nañ leen wax lu bari waaye ku ko jàngul doo ko xam secret bi daal mooy. am na ñoo nekk Sénégal seen doom nekk Italie nest ñii nga fii ñii nga fële man dama ne la kumba làmba daal moo jur gaa ñii fi toog même mboose bii si Kaolack moo moo yaayam rabu tëngéej maa la wax ji wax moo jur moo jur kale moo jur kumba bang bu ndar ak mbose bu Kaolack ñii fii itam noonu xam nga lii ma la jox boo ko boolee boo ko xoolee kenn ku si nekk am nu ñuy daan defee ak mag ñi ak yooyu mag ñi ñun loolu lañ fi fekk est-ce que dégg nga fi ma jëm si lii fi ne mais secret bi dëgg dëgg dëgg duñu ko wax waaye lii wóor mooy am na foo xamante ne boo nu fa tooñee di nga xam ndax dara ne fa la nekku fi d'accord léegi maam damay ñëw nag ci yëngu-yëngu jamono ci yar euh, ci ni ñu doon yaree mag ñi ni ñu doon ni mag ñi ni ñu doon yaree ndaw ñi ni ñu doon yoree seen kër et léegi jamono ji yàqu nga xam ne internet bi daanaka réseaux sociaux yi nga xamante ne njëriñ ngi ci waaye loraange mu ngi ci euh, surtout ñun ci wàllu wu ñu nekk euh, ngay gis weerante bi bari na ci gaa waaye tamit ñoo xamante ni dañuy jël seeni awra di ko ci wane loolu lépp yow noo ko jàngatee ak noo ko gisee. soo maree su mareem ak binta binta xam sàmba bu nu wanentee du ñàkk fayda bu ëllëgee tàmm suñuy set ñoo koy tiim parce que xamuloo kii da nga gis ko xamuloo kañ la fi jógee man dinaay gis jigéen ñi sax nit bu fecce ba sa pooj génn xam nga foofu loolu su suñu bokk yi lébu yi loolu amuloon doo ràbbin da ngay yëkkati benn tànk teg parce que paa bi mu yaatuwul gumbe da ngay tëb di dem mais ak sër bu jot du demen nen xale yi nag xew léegi dafa mel ni daal ñoom daal ay seeti iblis lañ comme ni ma la mën a expliquer xale yi jigéen ñi ñoom ñoo mel noonu xam nga lu indi loolu nag. ku nekk si góor ñi ñooy ëpp lu ñuy wane de fi mu toll nii. waaye ma ne ñu góor ñi bu ñu wane loolu tam kooku ku def loolu jàpp ko comme ku ñàkk fayda rek mais ku jigéen ke ko jëkke <clears throat> parce que war a war mel na nga war a mel oddoo sëb sër sa jot sollu jot nga sollu dang lu seere mais loolu nu mu doon bu ko sa doom di def nga koy gis te doo wax tous bu ëllëgee bu ne fépp doo ko fa waxee. mu ne fépp bu ëmbee doo ko foo koy waxee parce que yaa ko may muy muy muy muy muy muy muy tàngal ceeb bi ndànk-ndànk aussi lekkee au jour boo waa doo wax aussi dañu gis ne peut-être jigéen ñi yooyu leen intéressé ma ne réew mi fi mu toll nii sabar gu tas la diine waxul lii xew nii diine xam nga lu mu wax beral góor ñi bañ naa ko ba dégg laa tax xaroo boo zina moom laa jëkk a jàng si si alxuraan <laughs> ko léegi ñun suñ boppa ñun engagé yooyu di si dugg si Sénégal gi nga xamante ne musuloo gi sax lu ñaaw di nga toog ay fan gis kenn ko def lu ñaaw te ku ñaaw kooku buñ ko jàmbatee rek dafay bëgg sax xurfaan mais lii xew réseaux sociaux yi fekk kilifa di ko wax musiba moo fi fekk koo xamante ne defu dara nga tooñ ko ba géej gi ñiis léegi nga bàyyeeku waa grand place ba ñu toog sa grand place ba naan waaw dafa lii moo tax. maam yaa ngi ciy rax gaaruwaale de. déedéet gaaruwaale ma kenn yéen seen bopp yéen Sénégal. Sénégalais laa wax de man waxuma la kenn. sénégalais laa wax parce que man man noppal naa sama bopp ba ma toogee ne euh, euh, lépp lu mu waay def lu dang ma dang ma problème moo ko am di ma si wax lu ñaaw baaluma la wax naa ko ba mu leer. maam ba léegi man danga maa waxoon ne duñ si wax nga boole si nag boobu ba léegi di gaaruwaal dafa mel ni Maimouna Ndour Faye ngay wax lan ngeen jotee. déedéet Maimouna Ndour jotewuñu dara Maimouna dafa def erreur rek. may mun a du ma ko gaaruwaale suma doom la may mun a ñoom ñii ko contacter dañ ko nax parce que réunion comité de gestion wu juma même ak lu mën doon est-ce que d'accord nga télévision am fa place am fa place am nga nag turu jaraaf pour nga fay ko ñeneen dañuy science ne non dañ koy du CAD ñii xalaat ne jaraaf nañ ko def nii nañ ko def na leen mais ñoom ñëpp tant qu'ils sont kenn du réussir ndigam neex na yàlla yàlla ma ko may xam nga man bo boy tëm ah sa collègue yi nga àndal ay un mètre vingt un mètre vingt cinq lañ man un mètre quatre vingt dix su ma quatre centimètres bu ma bu ma solee gërëm boo dëgg bu ma taxawee nga ne gentleman gi maanaam caaj quoi caaj nit dafay am caaj ndax dégg wax bi et puis c'est ça parce que xam nga dafa am loo xamante ne su la yàlla maye da man damay ñaan yàlla sax pour que ñëpp am caaj parce que gis naa ne caaj bi moo indi programme bi yëpp lii nii benn vieux ma sama ko wax fii sama ah, ko si booru armée bi dama ma ne mais jaraaf yow xanaa bi Ablaye Ndoye Jaraaf euh, euh, nekkee fii boobu ngeen préparé seen affaire bi beneen bi nag lu tax mu ne non dama gis mu am caaj man dama mos am caaj ndax di nga wax bu may bu may wax naa leen ko fële si euh, jàng yu amoon guy sor man leen bi may nodd maa fi dàqoon nodd Sénégal si wakaam gi kenn du ma yeb si nodd xam nañ ma dégg boo ma noddee fii boo taxawee fii da ngay defee ne benn naar mooy nodda fi ngoon su ma ñëwee toog a nekk jaraaf nag ñooy jaraaf dafa war a set ngoon damay set am déet baay su ma ne jaraaf suñ ma ne jaraaf dafa war am caaj damay am caaj xam nga lu xew bu nu naxante nu Sénégal kenn ku nekk si nun bu fekkente ne yaa ngi gëstu li nga war a jëkk gëstu mooy ñaati naat ñooy nen par jour est-ce que xam nga ne suma maam moo créé Wakam en 1601 est-ce que xam nga ne suma maam mooy jaafi mbaaw li ma wax si si kii bi laa koy waxee de bëgguma kan ñoom ñëpp xam nañ ko xam nga ne suma maam mooy jaraafi tëngéej ñëpp xam nañ ko boo demee bari ñu sax bëggu ne pan kii parce que sama yaay papa fa la jógee su ma ñëwee ak sama drapeau ndóoyeen rek damay falu am nga dafa am yoo xamante ne nag da ngay waaru quoi parce que euh, comme nii ma mën a waxee rek parfois da nga gis koo moromee par exemple comme man li ma gisan si benn benn cadre yi ma gis fii dangay ngay moromee ñoom wala nga mag leen tuuti ñoom ñu defoon ne fël nañu parce que gars yi bu ñu daan dem France jàngi dan la fiy bàyyi bu ñëwaatee fekk la fi bu ñëwee gis ngay liggéey comme par exemple man SDE laa doon liggéey suma salaire daana si def lu ma neex mais dama daan jàppane rek dama daan jàppale ay nitam mais da ngay dama dem ba ñoom dañu defe ne ñoom xaalis yooyu ñu yor daf lay jaaxal mais fi mu toll nii nag ñu dem ba xam nga barkeel dafa garaaw nga dem ba retraité gis ne kat jaraaf kat moom xamuloon dara CM2 la yem parce que CM2 yam ci am mu ngi xëy nga daan ne way tey jii ñaari minute ñetti minute ma xëy ànd ak samay bagage xaas samay kërëb kërëb bu ma neexee dem fii ma neexee dem fële yow nga taxaw benn place di kof kofi naan dama socc waaye dama xuur faan après looy def dee. daa mel ni maas ngay waar mbéy nga la sant. mais lii wuur mooy Sénégal ñun su suñu bopp nañu taawal ak mbaax. waaw léegi léegi voilà loolu laa bëggoon wax léegi léegi fu ngeen mujj ndax baal nga ko ndax ak quoi qu'on puisse dire nag sa sët la sa doom la sa lépp la sa dëkkandoo la. kan Maimouna Ndour. ah déedéet oh, doo yomba trop parce que man defuma defaale wu ma tooñu ma tooñaale wu ma ba ma xëy porte ma plainte porte plainte samay waa kër si wax joo xamante ne yow xam nga ne wax jii du wax ju taxaw. nga xam nga olof lu mu wax làmmañ du lekk moom te ñorul man maymu nag xam nga laa diggaale nag moom mu indi caméra am ne lii la soxla ma defal ko si ba mu doy ma dem loolu papam boo seetee mooma féetee mag moom wala mag benn at wala ñaari at ñu daan eggaatandoo fii si mbul ñu daan defandoo lépp mais problème bi dafa am boo ngeen xoolee ni situation bi amee dafa am muy korkorool ay syndicat def ay wax ay kii kërëb kërëb xam nga loolu du technique koo xam ne da nga war a jàppante moom ëllëg ngeen jubbowaat mais loolu mooy àdduna mais su fekkee da danga da nga jàppanteeg moom rek oo gi syndicat di jaay ne da nga jàng français fii la jànge fii si école bi climatisé wuñu ko dara amu si ay kii oto ki yoo xam ne ngay jàng ba mu yàgg nga ne ouf seen école yi dañ ko climatisé waaye yow booy booy booy fii gars yi dañu yokk ndox rek dañuy yokk ndox fii